بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي ñetteelu xadiis ci xadiis yi ñeent fukki xadiis imaam Nawawi yenn yàlla gërëm ko nee na an abdillahi bini umara jëlee nañ ci sayidna abdullahi doomi sayidna umar radiallahu anhuma yal na yàlla boole leen gërëm sayidna abdullahi ibni umar bokk na ci saxaaba yi gën a fonk sunna yonentu sallallahu alayhi wa sallam donte ñoom ñëpp ñoom ñëpp a ko fonk hmm. waaye moom ba ci sunna yi ñu digalul ñu rey ci yonentu sax hmm. dana ko ca roy hmm. li ñuy tuddee aljibiliyaat maanaam nit ak na mu bindoo buy dox dafay jéem a dox ni yonent bi daan doxee sallallahu alayhi wa sallam donte togguñ ñu loolu togguñ ñu loolu daan na dem bërëb julli fa ñu ne ko lu xew mu ne ndax dama mosaan na yonantu mu ñëw ba fii julli fi mm-hmm. daan na dox ba ci kanam sax mu waaf mm-hmm. ñu ne ko lu xew mm-hmm. mu ne dafa am branche garab bu mosoon a ne fii ma ànd ak yonantu bi bi mu ñëwee ba si fii dafa waafoon fàttaliku waafu yonantu googu tax muy waaf ah, ku soppoon njubal yonantu bi kaar la woon sallallahu alayhi wa di doomi Seydina Umar ibn al-Khattab mi nga xam ne yonantu wax na ne du sóobu aw yoon lu dul hmm. seytaane dana sóobu yoon wa ca des hmm. maanaam seytaane dana daw hmm. yoon wa xam ne wala Omar sóobu Omar du bokk ak seytaane yoon bokk na ci ñi nga xam ne ci ñoom la yàlla doole lislaam ak xisay tuuba ñëpp xam nañ ko keroog ba mu tuubee nag ci ñaanu yonantu ci la jullit yi génn ci nëbbatu gañ daan nëbbatu ci daarul arqam bi ibn abil arqam wata mm-hmm. ñu koy wooye alfaruq yàlla tàqalee ci moom dëgg ak fen mm-hmm. lu seydina abdullahi wax mm-hmm. qaala nee na qaala rasulullahi yonentu salallahu alayhi wa sallam wax na ne bu tabax nañ lislaamu lislaam mm-hmm. tabax bu rëy bii kaar di lislaam mm-hmm. ala xamsin ci juróomi fondement mm-hmm. juróomi ponk muy firi nekkoon lislaam bari nay ponk waaye yi nga xam ne suñ dikkut tabax du am muy juróom yi doom yi ñooy ponk yi ci gën a am doole mm-hmm. ànd ak am na yeneen yi jëf yoo xam ne ci lislaam lañ bokk yu mm-hmm. bari mm-hmm. xam yu ñu waral la baa yu ñu sopp bépp topp rek ci lislaam la bokk bàyyi gépp moyit ci lislaam la bokk looloo tax nga gis yonoon dana wax ne jullit mooy ku jullit yi mucc ci làmmiñam mm-hmm. ak ci loxoom maanaa ci ayu làmmiñam ak mm-hmm. ayu loxoom xataa fegu sax ci lislaam la mm-hmm. waaye juróom yi nga xam ne nag ñooy fondement principal yi yooyu juróom yi yonentu sallallahu alayhi tudd si njëkk nooy shahaadati an laa ilaha illa seede ne yàlla rek a yàlla wa anna muhammadan ak naka yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu mm-hmm. sang mm-hmm. rasulullahi ndawal yàlla mm-hmm. bu njëkk bii nag mm. mooy lay taayal yi ci topp wax da borom ibnu ashir ne la ko waxee wa qawlu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu lilahu yajmacu kulla hadihi almaani kaanat lida calaamata liman ba mu waxee liman yëpp mu ne ñëpp a ngi dajee ci laa ilaha illa muhammad rasul wa hiya afdalu wujuhi dikri fashgal biha al umra tafuz bi duxri bunt ba ca topp mu ne faslun wa taatul jawaarixi ljamic qawlan wa ficlan huwa lislaamu rafic mm-hmm. qawaacidu lislaami xamsun mm-hmm. waajibaat mm-hmm. wa hiya shahaadataani chartul baqiyaat mu ne shahaadataani mooy sartaa yi des maanaam buñ dikkut nit ki na woor ba dee du ko jëriñ na julli ba dee du ko jëriñ na joxe asaka lim am yëpp du ko jëriñ aj màkk ak dundam yëpp du ko jëriñ mm. lu tax kon nag bi gën a am solo mooy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ada wa hiya shahaadataani mm-hmm. shartul mm-hmm. fokk nga dàq ne benn yàlla amut mm. saxalit saxal gu wóor ànd ak tudd ak jëfee ci cër mm. ne rek ay yàlla moom rek ay dëgg dalika mm-hmm. bi anna allaha mm-hmm. huwa alxaq mm-hmm. wa anna ma tadcuuna min dunihi huwa albaatilu wa anna allaha huwa alcaliyu alkabir moo tax mu wax ci alquran ni faalam annahu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah nag gannaaw bu yàlla yónnee yonantu du wér mukk feeg muhammadun rasulullahi bokk ci ndax yeewoot kat seet nañ ne laa ilaha illallah mm. waaye ba weddee yonantu rek mm. la yàlla dàq seenug tawxid mm-hmm. ndax nangul yàlla mooy nangul mm-hmm. yàlla wax ne nanga ko nangul mm-hmm. wa iqaami salaati ak taxawal julli juróom waxut julli juróom alquran yëpp doo ci fekk yàlla naan sallu aqimu salaa rek lay maanaam hmm. taxawal ko ci hmm. dëgg-dëggam hmm. fonk ay ponkam ak i waajibaatam ak i chartaam te sellal julli ga te yàlla rek tax waaye képp koo xam ne indi nga melow julli taxaw yaag rukoo yaag sujjóot ya te ak dal amu ca ba defuloo ko na ko war a defee mm. waa yàlla taxut mm. wala defuloo ko ci waxtu wa mm. te ngant amut waa nga bàyyi ko defak mbooloo te jublu ci rekk ne du dara wala sax nga bañ koo taxawal euh, maanaam benn ci yii wa dindeeku ci julli ga du baax duñ ko tuddee sax julli sàkkaa di ko jullee tuddee taxawal julli ki julli moom kese te amul ngant hmm. julli na de waaye taxawalul julli hmm. ku bàyyi lenn ci ponk yi oh, maanaam lenn ci farata yi hmm. def na meloo rekk waaye julliwul sax ah, moo tax yàlla ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta bëgg ñu defee ko ci mbooloo ndax ah, warkau maa raake ah. yàlla bokk na ci ñim gën a xas ci alxuraan hmm. ñu sàgganee julli hmm. fa xalafa min baadihim xalfun hmm. adaau salaata ay axrajuha an mawaqitiha waaw képp ku yéexee julli walis waxtu rek sànk nga ko fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahuun tuddee na leen musallin ba pare tëkku leen ànd ak ñu ngi julli lu tax hum an salaatihim saahun assahu ani salaati ixraajuha an waqtiha min gayri udr sàgganee julli mooy génne ko ci waxtam tàggantu amut képp koo xam ne nag ba nga ko moom moom nga diine ndax yonentu nee na julli mooy kennu diine ku ko taxawal taxawal nga diine ku ko màbb màbb nga diine yal nañ yàlla boole ci way taxawal julli kon taxawal la wax wa iqaami salaati wa itaai zakaati fonkab ñetteel bi ak joxe azaka azaka julli nag duñ tàqali ko mukk seydna abdullahi ibnu abbas ne ñett ci alxuraan duñ tàqali ko fu yàlla tuddee aqimu salaata rek atu zakaat la ci teg fu mu wa abudullaha wala tushriku bi shay'an mm-hmm. wa bil waalidayni ihsaan rafetal jëm ci wayjur la ciy teg mm-hmm. waaye fu mu tuddee atiu llah topp mm-hmm. leen yàlla wa atiu rasula la ciy teg kon képp ku saxal julli weddi waruk asaka julli boye booba julli ku bëgg a topp yàlla na doo topp yonant toppagoo kuy jaamu yàlla doo rafetal jëm ci say wayjur jaamu ga du baax yonentu wax na ne hmm. euh, baay mooy gën ca diggu hmm. buntu ci bunti aljana yi hmm. wax na ne aljana ngi ci suuf yi ndëgu yaay jannatu taxta aqdaamil ummaati kon yi ñett duñ tàqali mukk moo tax julli mooy jaamu jëmmu mm-hmm. gi gën a rëy mm-hmm. waaye azaka mooy jaamu poche gi gën a mm-hmm. rëy jaamu poche la waaye jaamu xol gu rëy la ndax génnee li nga gën a bëgg joxe ko ngir ki nga gën a bëgg mu yàlla ki nga gën a bëgg fee gën a lul la li nga gën a bëgg bëgg ko ko ba tax yàlla sax suy wax ci jihaad ci alxuraan toujours dafay wax na ngeen jihaad ci seen alal soog a tudd jihaad ci seen bakkan hmm. ndax kii dem jihaad te alalam ne ci xolam hmm. boo moytul du fa nangoo bàyyi bakkanam ngir yàlla hmm. fokk mu nangoo génne alalam ci xolam ngir mën a joxe bakkanam ci yàlla ba kër bi nga xamee ne ñu bari gannaaw yonantu terewu nañ ne duñ joxe asaka dafa xeex ak ñoom ne buum guñ daan joxee ci jamono yonantu suñ ko xañee rek hmm. ma xeex ñoom hmm. ndax kenn mënta tàqali julli hmm. ak asaka moo tax ku weddi ak waram dañ lay yëfeerloo ku ko terewu nag dañ koy jël ci moom ni nga xamee ne ku bañ a jël jox fay lempo dañ koy jël ci moom par ci état ba pare sax tegal ko ci ab xaraam maanaam mhm. ak amande mhm. wal xajji mhm. ak ajab aj néegab yàlla bi julli moom bët bu set la juróomi yoon asaka nag dana nekk benn yoon ci at mi dégam kuy def commerce la walla koo xam ne am na lum denc wala ku yore juri kër dem gëlëm la te mat nisaab ndem mm-hmm. xar la ndem bëy la ndem mm-hmm. nag la mm-hmm. am na azaka yoo xam ne du mat at ni ki azakaay mbay waatu xaqahu yow ma xisaadi soo góobee rek azaka war na ci ku fekk lu ñuy wax rikaas wala yu mel noonu it mbell yooyu azaka daf cay war ah wal xajji aj nag moom hmm. benn yoon la war ci dundu doomu aadama hmm. yonent bi mu ne hmm. yàlla farataal na ci yéen xaj dafa am ku nekkoon ndax at mu jot la yonentu tontuwut mu répété ko ñetti yoon yonentu ne ko su ma ne waaw rek mu war nga gis ma xamam yonentu bi nga xam ne su ne waaw rek yàlla waral su ma ne waaw rek mu war walillahi ala nnaasi xajjul bayti hmm. jàng nañ xijjul bayti hmm. waaw moo tax laaj te fekk du barabu laaj yàlla di ko tere hmm. laa tasalu an ashiyaa in tubda lakum tasukkum wa in tasalu anha xiina yunazalu alquranu tubda lakum ki yàlla gën a jëppi mooy kii laajte dara loo xam ne farataaluñ ko woon ñu farataal ko ngir laaj gim ko laaj te yonent ne bàyyi leen ma feeg maa ngi leen di bàyyi li mm-hmm. alak xeet yi leen jiitu mm-hmm. ñooy bëri laaj mm-hmm. yi ñu doon laaj seen yonent yi ak bëri nee wax nañoo nee nañ kasratul xiili wal xaali suaali ala anbiyaa yi الحج فرض مرة في العمر أركانه إن ترك لم تجبري الإحرام والسعي وقوم عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة والصوم رمضان ak woor weeru koor muy juróom-ñeenteelu weer ci weeri ci atum ci weeri atum weer wi maanaam ci luna calendar woor ci ak mu jot ñaar fukki fan la juróom-ñeent mm-hmm. mbaa fanweeri fan mm-hmm. kooku farata la ci faratay lislaam du sax farata yem ci waaye ponk la ci mm-hmm. ci képp koo xam ne euh, mu kallaf la léegi nag danga gis ne fii tudd na fi wa ramadaana mujjee ko am na ci yoo xam ne wal xajji mooy mujj xaj mooy farata bi ñu mujj farataal mm-hmm. farata yi mm-hmm. ci lislaam mm-hmm. ndax weeru koor ci ñaareelu atum gàddaay gi ci lañ ko farataal aj nag ci juróom-ñeenteelu at mi lañ ko farataal gannaaw Quraysh dañ daan def nasiwu mooy di soppi weer yi ngir bëgg a xeex bu fekkee arrangé wul leen te am na weer yoo xam ne kenn waru caa xeex ni ki weeru aj dañ daan soppi yooyu mm-hmm. juróom-ñeenteelu at mi nag comme weer wi ñëwaatagut fi mu waroon a ne parce mm-hmm. que yonent ajiwut dafa yónni Seydina Aboubacar mm-hmm. mu aji mu yónni Seydina Aliyu mu jàngi soorati baraatu ngir wax yéeféer yi ne gannaaw ren ab yéeféer dootu ajati néeg bi kenn sañatu la wër néeg bi te fekk solo yére ci déwén sa nag laa soog aji moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ca xutbaam jamono jamono delloo si na nem meloon hmm. mooy bés yi bu nekk dellu si waat na hmm. ci la sooga aj ajam nga nga hmm. xam ne mooy ajug lislaam moom la ñuy tuddee it gàddaay gi ci la résumé it lépp loo xam ne ni jullit yi war nañ koo xam ci seen diine ba bés penceef taxaw mu ci jógee ñibbi weeru tabaski dee di dugg weeru tamxarit hmm. ca mujjëg weeru digg wa ci la daanu feebar hmm. li gën a wéer ñaari fan ci gàmmu hmm. ci la fi jógee sallallahu alayhi wa sallam am nañu yàlla defal dégg defal ñu topp hada wa sallallahu ala muhammadin